asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 2 octobre 2019 ñëw ci yëglikaay yi sunu lamb nag tey fële muy xëyee yëglikaay bi nag tey dafa xëy ñëw ci loo xam ne nii dey leer na naññ nag léegi mu mel ni ki nag ku ko doon xaar moom boo yeboo nga bànneexu te xam ne nag mbir ma am na mu mel ni ki daal saison ba arbitre ba nee na ubbi na rek wala seen seen saison ba ubbi na daal Pape Abdou Fall moom itam ñëwit moom itam day dal di koy ubbi nam ko ubbee nag leer na ramas boo xam ne day amoon na fi di ab komba moom lañ ñu indil nag ramas ba dox ci diggante ki nga xam ne nii day mooy tafaatin les géant di bawal tafaatin mi nga xam ne day mooy doomi bawal ak reefan ñu ne nag combat ak Ama Baldé taxaw na Ama Baldé ba nga xam ne nag mooy sulu bu ndaw di borom Pikine kon daal Pape Abdou Fall moom indiwaat na komba ba nga xam ne amoon na fi moo tax yëglikaay bi lay ñëw wan ñu ñaari mbër ya ñu nga taxaw ku te ci ñoom ñaar takk sa ay jaaj ak itam wan photo boo xam ne day mooy na nga xam ne noonu la Ama Baldé daane woon Tapha Tine ca combat bu njëkk ba kon nag loolu moom leer na nañ combat ba taxaw na Ama Baldé Tapha Tine Pape Abdou Fall moo fa jaar suñu làmb xëy ñëw dina ko wax waaye moom Tapha Tine day écrém ba nga xam ne ca la bokk muy bawal mbooloo moom dox defu ko bougéwul maître yëglikaay bi di suñu làmb xëy tey ñëw wax na ko neuf combat la ñu am quatre victoire quatre défaite ak benn sans verdict mu mel ni ki daal kon Tapha Tine jamono jamay am combat moom la ñu def ci saison bii génn moom doxul demul dikkul loolu sunu làmb xëy ñëw wax nu ko ñëw nañ ca moom ma nga xam ne année balance la def ci saison bi nga xam ne nii day moom la ñu génne moom tafaatin ak ay xale yoo xam ne day seeni mbir tamit taxu koo dox ku mel ni ki dafa leer ak ñoo xam ne moom année balance la ñu def ñu mel ni ki ñoom ñii nga xam ne ñu ñoom ñooy ñagas ak ku mel ni soose maane ñooñu ñoom kenn gisu leen koo xam ne itam déception bu rëy rëy la ci écrit ba mooy alliance waaye ka nga xam ne nag moom mooy rakki tafaatin di njaaytin moom day yëglikaay bi di sunu làmb ko tudde tëdd moom daal xale la boo xam ne day ci écurie Bawol mbooloo boobu moom mu ngay wane boppam bu baax a baax moom Ndiaye Tine di daan di teg ay mbiram ca la nga xam ne nii de moo di aw yoon sunu làmb xëy ñëw wax nu ko ki nga xam ne moom daan na ca MMA ba mooy Siteu yëglikaay bi di sunu làmb xëy na ñëw wax nu ko mu mel ni ki nag yëglikaay bi naan ko Siteu nag léegi comme nag am nga ay nam ca MMA ba léegi nag lay xaar fii ci sama réew moom muy làmb ji nga xam ne moo tax ñu xam la mooy nag fooy jaar ba taxawaat ci làmb ji ndax nag Siteu ci defet la jóge saison ba nga yële nga xam ne moom la ñu génnewul diggante mu guy gi saison bii jeex mu def ca li nga xam ne moo di année balance moo tax sunu làmb xëy ñëw samp laaj boobu jëmale ko ci ki nga xam ne nii moom moo di Siteu ka nga xam ne nag moom la bokkal écrit di ki nga xam ne moo di Kona Kona moom xëy na di wax Kona daal ne na fi mu nekk nii pare na ngir jàkkaarloog Kala doole wala ki nga xam ne moo di Petit Niang ndax moom ne na am na sept combats am na six victoires ak benn defet yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw wax ñu lu mel ni ki noonu waaye mu mel ni ki nag saison 2019 jàpp 2020 moom yëglikaay bi ñëw na ci ubbite bi nee na démb nag lañ ko ubbi mu mel ni ki nag sunu làmb ngay xaar loo xam ne day waras na ko caa mën a xaar maanaam baatu record saison bii nga xam ne moo passé woon ci ay journée ci saison bii nga xam ne moom lañu ñu war a ñëw jëm ca ak itam dellu seeg yenn VIP yi nga xam ne année bii génn dañoo defoon année balance ak loo xam ne tamit waras na ko caa mën a xaar muy li nga xam ne mooy daje boo xam ne day dina am ci ñi nga xam ne moo di VIP yi sunu làmb xëy ñëw wax na lu mel noonu waaye am xale boo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom muy booy Dakar mu mel ni ki day moom day ah loo ci mën a dégg day la mu jaxase ci làmb day bëri na boo bëggee dégg dëgg côté boo xool daal ci sport mën na ko lool xale la boo xam ne day mu ngi ci ñaari ndam yoo xam ne moom la tegale ci saison bii nga xam ne moo jeex muy booy Dakar di xale boo xam ne daal lamb war na koo mën a bàyyi xel yëglikaay bi di sunu làmb xëy ñëw wax nu ci lu mel noon ci moom ki nga xam ne tamit yëglikaay bi ñëw na ci moom di xaar retouram kañ lay doon mooy Pape Thialis Faye sunu làmb xëy ñëw wax nu ko ginnaaw saison 2017 jàpp 2018 ba mu fa ñëwee nag def fa la mu fa defoon waaye saison bii génn de gisee su ko ay ay bët ci làmb ji moo tax sunu làmb nag mu ngay laaj retour ki nga xam ne moo di Pape Thialis fay kañ lay doon ak naka lay ñëwee waaye keneen koo xam ne moom yëglikaay bi ñëw na ci moom muy ki nga xam ne nii lay moo di Agnès Njogoy di doomi ki nga xam ne moo di maye nepp ngom yëglikaay bi nag ñëw na ci moom tey moom waxtaan moom nag wax na ci ay ak débéem nee na nag mu nga débuté woy ca fi nga xam ne nii mooy ci atum 2006 loolu daal la wax yëglikaay bi nag ñëw na ci moom Agnès nag wax na nee leer ba leer day ah moom daal bëgg naa wane boppam bu baax a baax ci lii nga xam ne nii day moom lay def di way carrière boo xam ne daal bu wóor a wóor la ci bëgg a def waaye itam ñëw na ci fa nga xam ne daal jaar na fa loo ci mën a dégg daal kon li leer ba leer moom Agnès tey wax na li nga xam ne moom la namm ak li nga xam ne moom la bëgg keneen ka nga xam ne moom ab langa ndom la wala mu woo di mbokkam ci wàllum way mu di mbayang loom mbayang nag yëglikaay bi ñëw na ci moom mu mel ni ki nag mbayang gis na aw daal wu ko jot ba nag jël na ko ba sol ko loolu am na borom kër suñu làmb xëy ñëw wax nu ko mu mel ni ki daal kon ah loolu soñña la ci ñi nga xam ne nii day amaguñu borom kër nañu góorgóorlu wala ñu ñaanal leen yàlla ñu am borom kër waaye ñi nga xam tamit amaguñu soxna nañ leen ñaanal yàlla ñu am soxna ku mel ni sama waa jiiru filma di yàgg maar ak faal mi nga xam ne nii moom mooy def li nga xam ne mooy montage bi yàgg yaag faal yal na ngeen am ay soxna yu baax a baax ak képp ko soxla waaye ndey kumba faal sax yàlla na ko daal di takk ndax it nag du mën a ñàkk. olof na ni mu gën a jege gën a yey. moo ko waa Leewtoo TV di leen di nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu ay bi Babacar maa ngi lay nuyu di la gërëm di la ziar. maa ngi lay fay ah di la gërëm di la ziar du mën a ñàkk waaw loolu ngeen dégg nag du mën a ñàkk moo tax ma wax ko rek xam nga sëy moom bu jotee ah dañuy ñaan yàlla rek muy góor muy jigéen yàlla may la koo koo soppanteel ngeen mën a sëy moo tax ma woote pour dadi ñëw yàgg dem Moussa dem ku ci ne ut foo dugg rek mais nuyu naa internet yëpp. yow tamit nga wut ñaareel wutal te nekk ñaareel ndax jot na. ñu euh, ñëw nag si revue de l'arène sunu làmb bi sunu làmb tey nag mi ngi ñëw nag ak euh, information boo xam ni fan yëpp ni ngi koy laam-laamee tey nag euh, nee nañu taxaw na depuis démb Pape Abdou ko taxaw mooy la revanche du siècle diggante Tapha Tine ak Ama bi nga xam ni ñoom ñoo bëre woon le 15 mai 2005 si 2015 si tournoi TNT bi te Ama Baldé jëloon ndab li léegi nag Babacar def naa léegi premier combat VIP taxaw na pour saison bi di ñëw. Pape ñu koy nuyu di ko ziar le président des promoteurs comme niñ ko xamee. ah mu mel ni ki nag kon defe naa ne démb dégg nañ fi Abdou Bakhoum sànni xeer bi mel ni tulleeg màlle mais booba man xam naa ne am na luy xeeñ ndax combat bi promoteur bi mu ngi ko doon dox am nay promoteur yu ko doon dox mais nag ci lu ma ci mujjoon na ci moo leen kale woon te diggante boobu ak léegi ci semaine lay war a toll sax wala matu ko kon xam naa situation ba mu décanté wu ba combat bi taxaw muy revanche boo xam ne comme ni nga ko waxoon TNT la ñu bëri woon tournoi TNT 2015 Tapha Tine Ama daan ko daan boo xam ne ñi dañ ne woon waru woon a deme nii parce que kii warut a daan tafa te ma ne nag li am ci làmb mooy mbër mu jël sa avance pare na ngir daan la te ama mën na daan ku ne loola nag actuellement tey tafaatin ah bal bi ciy kaam la nekk parce que dañ ne ni ku kii daane woon du yoon wala waru koon a daan kon tey defe naa loolu moom may nañ ko yoon woo xam ne nii nag ci la mën a jaar ngir weddi la nga xam ne nii moom la ñu waxoon ne ama waru koon ko def nii wala boog amaa ñëw wane ne man la ma ko defoon du lu ma tànte mais dama koo mën daan ko loo ci mën a dégg nag combat la bu nar a neex xam naa ni bii di ñëw moom li ma jàpp mooy mooy dàq bi passé parce que revanche la te combat revanche mënta yomb ah, euh, na ci li ñuy xaar si moom parce que promoteur bu mag la comme ni ñu ko ci wax daaw ba ñaan yàlla rek noonu mu ko dugg ci bismillah rahmaan na ci génn ak alhamdulillahi rabbil alamin mais tamit di nuyu yëpp yi nga xam ne ni taxawal nañu ay combat parce que lépp làmb la rek dafa fekk ne rek ku nekk ak Mm, dàll ba la jot ak mbub ma la jot ak la nga xam ne ni moom nga war a mën a sol maanaam nit ki li nga am nday Kumba Fall moom ngay duggee ji marché. waaw kon su suñu gisee ni Pape Abdou Fall président des promoteurs taxawal laam ñu kon mën nañ jàpp ne seen front bi ñu leen wax nañ koy def kon jeex na. ah waaw niru na ko de parce que itam lu mënta xew rek euh, moom euh, front ak lu mën a xew daal xam naa ne li ma wax rek ñu bokk teen ñooy laxasoo ay góor ñi yore làmb ji muy CNG bi ak promoteurs yi. ak amateuru làmb yi ak ñun ñi di wax si làmb ji ñu ñëpp ñoo bokk milieu bi li am solo nag mooy mën nañuy gañ bañ di bokk gis-gis mais nañuy waxtaan rek suñ dee waxtaan daal di xool li nga xam ne mooy solution yi di ko nangoo jël di ko teg yaakaar naa problème du mën a problème bu amee itam nañ ko régler daal Babacar suñu jógee nag si combat revanche du siècle boobu diggante Ama Baldé ak euh, ki nga xam ne mooy Tapha Tine dañu dem si beneen phénomène muy Siteu Siteu euh, suñu lamb mi ngi ne bu mu ginnaaw bu mu jëlee euh, ñaareelu victoire am si combat MMA am na nag lu koy xaar si bëre dóor maanaam relevé défi jugaat wanewaat boppam ne mu mënee na MMA mënee na bëre dóor. mënee na yëpp daal waaw bu lay neex de waaw loolu moom war na mën a ne Siteu champion la comme niñ ko xamee yaa ngi dégg war na boppam si làmbu Sénégal ba tey MMA mën fa dem prouver fa dara maanaam am fa ay ndam muy ñaari ndam ah kon nag to loolu nag ak question bi ñu posé tey c'est normal suñu làmb laaj ko wala mu xamal ko ne kat am na kon lu lay xaar fi parce que défi bi ko fii xaar nag mooy donte. gañe na MMA dafa jóge ci defe diggante ma guy gi def année blanche kon yaakaar naa nag war na jéem a relewaat defu jóg

mbooloo bi nga xam ne fa la tafaatin tafaatin nekk nee ñu moom daal seen seen saison bi ñu génn dara baaxu si nee ñu am nañ 4 victoire 4 defet ak euh, benn sans verdict. waaw loolu da du bilan bu baax wax dëgg yàlla parce que tamit boo xoolee sax combat yi bëriwul benn boo ñëwee combat yi bëriwul nag far défaite yaa ak ak ak ak ak victoire ya tolloo. yaa ngi dégg ak benn sans verdict kon ça veut que liggéey ba des na li ñu xam nag mooy que ni écrits euh, yooyu. mën nañ ne ay mbër ñu nga fa mais itam des fois xëy dañuy dugg saison boo xam ne liggéey bi ni mu war a demee du ñu demee wala régularité entraînement yi su amulee nag yooyu mën na feeñ ci biir làmb ji wala ci biir bëri bi ba nga xam ne yooyu mooy faral di indi résultat yi nga xam ne yu baaxul yooyu lay doon beneen bi ci des mooy mbër bu mag ba ñu tafaatin tête de file ba def année balance ak yeneen ñoo xam ne nii ci ginnaawam la topp ñu mel fi mu saison daaw neexul ndax fi mu ay defet boo xoolee combat yu mu bëri yëpp da ko jot a ñàkk ngi dégg am na fa ay xale yoo xam ne tamit vraiment ñu war a mën a bàyyi xel la ku mel ne rek moom gis nañ ne moom vraiment mu ngi wane lu ama am solo moom njaaytin ah loolu nag moom làmb ji daal li ma xam mooy ci mbër wala écrit entraîné ba ne ca di déglu la say entraîneur di wax la nga xam ne nii tamit moom nga war a liggéey ngay sàcc liggéey di ko teg ci aw yoon ba nga xam ne nii soo ñëwee daal boo sumee ko di nekk au top parce que itam daal yaakaar naa ne kon tey ñi nga xam ne ñoom la leen yore muy moom ñoom may ndewaan ak ña ca des lii nii moom yaakaar naa war nañ ci xoolaat jóg ci pour déwén lu mel ni bañ a am. Babacar nag suñ jógee suñu laam nañu dem si Leewtoo point net Leewtoo point net nit ñi xamal ni que tey am na ay promoteurs yoo xam ni daañu nekk seen CNG pour renouveler sa licence parce que may fàttali suñu mbokk internet yi euh, administration maanaam lépp lu. Euh, jublu wàllum këyit daal ubbi na fi nga xam ni mooy CNG depuis démb donc tey nag am na yenn promoteur yi nga fay annoncé ñoom jéey ñoom laxaat ak yeneen promoteur ñoo xam ne tey nag c'est parce que comme ubbi nañu moom administrativement képp koo xam ne ni bëgg nga licence pour nekk promoteur am nga droit dem képp koo xam ne bëgg nga licence pour mbër am nga droit dem wala yu mu ci mën a doon kon yaakaar naa fi nekk nii loolu moom Babacar suñ jógee si bëre ñu dem si lutte olympique lutte olympique tey suñu lamb mi ngi dalal ki nga xam ne mooy Adama Diatta nekk plusieurs fois champion d'Afrique moom daal mi ngi ñaawlu condition yi nga xam ni ñoom ñoom moom ak ay moom la ñu nekkee nee nañu CNG dafa war a dugalaat dafa leen gën a mën a jàppale waat ndax dem ay champion d'Afrique dañu war a ay regroupement yu baax jox xaalis bu doy ba nga xam ne suñu demee daañu mën a bëreek ñi nga xam ni ñoom nooy seen ay naataangoo waaye neen loolu yëpp gis na ko si amul daa jàppale bi nga xam ni moom moo si war euh, Babacar Diatta ñu koy nuyu di ko char di nuyu waa ñi mu bokkal lutte olympique boobu yëpp ah li mu wax nag nit ki moom ku ko bëgg a def ku ko bëgg laaj résultat di nga ko jox ay moyens yaa ngi dégg parce que sport moom ak lu mënta xew sport bu mu mën a doon ay moyen mooy tax résultat positif mën cee am bu baree baree bëri ah, comme wax na loolu nag ñi ko yilif ñu ngi koy dégg muy CNG bi ak waa ministère des sports xëy na loolu mu wax man na tàbbi ci noppee koo xam ne nii du doon tax ba nga xam dina ko mën a pour mbir mi ñu mën koo améliorer teg ko ci aw yoon ba nga xam ne suñu dematee ay compétition yoo xam ne yu international la dañ fa mën a am ay résultats yi nga xam ne bu keroogee dina doon lu xam loo xam ne daal lu positif lay doon daal Babacar nag suñ jógee si lutte olympique bi ñu dem nag si bëree euh, simple bi te nag suñu laa mi ngi euh, dalal ki nga xam ne moom mooy Agnès Diogaye Agnès Diogaye soo ko déggee mooy doomu may nepp Mbaye Ndeb waaw donc moom nag mi ngi wax naan moom daal objectif am daal mooy ñëw way Adrien Senghor ndax nee na amagul chance euh, way Adrien Senghor pour mu wane li mu mënee waaye nee na mi ngi si dox ay jéego pour promoteurs yi mën di ko bàyyi xel Babacar. waaw Agnès ñu koy nuyu di ko ziar ah, doomu Mbaye Ndeb moom la di dëkk ca Njaay Njaay Fatick comme ni ñu ko xamee ah euh, euh, comme li ñuy wax nag. waaw lu juddoo cim mu la olof yi wax bu naawul jaaxal ay mbokkam tey bu dee maye ndeb ngom mooy sa way jur bu jigéen def lu ne si làmb ci côté way ba bàyyi ko yow ngay mu jël relève bi dañ ko ñaanal yàlla mu réussir loolu loolu mu wax tamit ki tamit da ngay am ambition yaa ngi dégg parce que yaakaar naa ne dañ ne donn sa baay donn sa doon sa baay ko gën waaw kon bu bëggee donn yaayam ci way yàlla na ko yàlla dimbali mu réussir ko mais mu doon ko dafay am solo ku mën a way la ndax ñun fekk nañ ko ci ay làmb ci région de Fatick boobu mu koy way mais wax dëgg yàlla da xam ne waykat dëgg la comme li mu wax nag Dakar wala ngay way làmb wala tëgg làmb boo sañoon da day bokk ci say base yoo xam ne da nga fiy implanté wu que tamit baasu làmb bi mën nañ ne la wala boog fi communication bi di gën jàlle xay na moo tax moom ambition bu ñëw fu mel ne Adrien Senghor ñu koy ñaanal yàlla tamit di wax promoteur yi nga xam ñoom ñoo fay tëgg ah kon nañ ko bàyyi xel rek pour que mu mën a ñëw saison prochaine Adrien Senghor wane fa dara daal Babacar su fekkee am na yenn mbër yoo xam ne dañuy def saison blanche euh, sunu lamb mi ngi ñu xamal ne euh, ay promoteur tamit dañuy def saison blanche kii di Pape Thialis Faye nee ñu nag xëy na am nañu yaakaar ren dina ñëw euh, retour en force wanewaat boppam comme que daaw takkul ngéemam ah waaw Pape Thialis Faye de loolu moom mooy li sunu làmb wax waaw def naa ne balance ak ci Leewtoo production kon ñu koy ñaanal yàlla comme ni ko journal bi waxee rek mu ñëw saison bi ñu jëm wanewaat boppam parce tamit am na lu mu indi woon bi mu ñëwee ci 2017 jàpp 2018 bi kon nag yaakaar naa ne loolu mu wane woon nag tey bu ñëwaatee ñu ngi koy xaar ci lu supérieur loolu wala boog lu tolloo ak loolu kon ñu koy nuyu di ko ziarat moom mooy suñu DG encore une fois di wax ne que daal kon Pape Thialis waa suñu làmb ne na daal ah waa lu làmb lay xaar comme ñu ngi lay xaar nag ñu lay xaar jéem a ñëw daa gën a wóor loolu la gën a wóor Babacar ñu ñëw nag an benn nouvelle boo xam ne taxaw ta neex noonu muy buur buur géwél animateur buur géwél bi nga xam ne moo nekk XFM f ñu daal depuis ay quelques semaines daal dafa tëdd feebar yaram bi daal dafa sutante mi ngi ñaan nag ndimbal pour daal waa askanu làmb yëpp ñoo jàppale ko mu mun a jóg euh, yàlla fëgg boppam bu mun delluwaat ci liggéeyam waa buur waaw ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yëkkati mook bépp doomu aadama bi nga xam ne yàlla teg na la wéradi parce que tamit lu ñu mënta wax rek lépp suñu borom bi la mooy tege neex di tege lu naqari waaye nag comme loolu nga xam ne moom moo war a mooy ñun ñuy dimbalante te yàlla tax kon ñu ngi wax képp nga xam ne daal yaa ngi ñuy déglu wala nga ñuy setaan nga dugal sa loxo ci loolu nga xam ne ni dina dimbali buur géwél boobu ngir yàlla mën ngir ngir kam feebaram boobu mën a jóg ci moom buur géwél boobu nag parce que buur géwél xaw a si làmb mais du bu Dakar Actu du buur géwél bu DTV buur géwél bi mooy bu nekk XFM di rajo bu nekk ca way kon ñuy koy ñaanal yàlla rek yàlla na ko yàlla wéral di waxaat rek ku ci ne rek nga ci jéem a dugal sa loxo ñu jàppale ko te yàlla tax Babacar nu jeexalee nag ak nouvelle bu neex bi nga xam ne moom nga tëjee sànq maanaam mayanglum daal ama euh, amaan am na boroom kër léegi daal kenn waxati mayanglum dañuy boole waale si Sarr mayanglum saar Babacar muy nouvelle bu neex. madame Sarr <laughs> mayanglum borom bin farba ah loolu moom lu am solo la parce que tamit boroom kër moom si jigéen defe naa ne day yokku jaamu yàlla rek bu dee si góor itam. mu am soxna da koy day gën a dëgëral jaamu yàllaam rek kon ñu koy ñaanal yàlla sëy boobu mu dugg yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe yàlla may leen si njaboot gu am barke parce sëy moom jaamu sunu borom bi la yaa ngi dégg te itam yàlla na leen yàlla dimbali ba ñu àttanante mën a muñalante parce loo ci mën a dégg moom sëy ci niñ ko xamee ñun maanaam dund gu jeex la yàlla na yéex kon bu amee nag ci biir day neex di naqari yàlla nañu yàlla yàlla yàlla nañu yàlla dimbali ba nga xam ne liy naqari ci biir dinañ ko mën a muñ gérer ko ba romb ko liy bànneexu tamit ñu mën koo gérer ba nga xam ne duñ ci ëppal ba mu baanaam di def lu ëpp daal kon daal di ñaanal mbayang madame Sarr yàlla na ko yàlla defal jàmm ci sëy bi comme ni ma ko waxee rek di ñaanal ñëpp ñu nga xam tamit amaguñu yàlla na leen yàlla may te mu doon lu gën ci ñoom amin Babacar sa kàddu yu neex yooyu ak ñaan yu neex yooyu la ñuy tàggoo sunu mbokk internet yi di leen dox dig daje suba incha allah mais balaa boobu mooy nuyu sama yaay mère Sow di nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuyu Dadi Gueye di nuyu Astandine DG Brahma depuis Idaat li chéri Khadija ni maam Diarra Penda di nuyu bébé Fallou di nuyu euh, bébé Rokhaya Eva Diallo yaa ngi si biir ak Junior maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam daal mbokk waa Leewtoo la ñu. waaw noonu lay demee di leen jiyaaraat di leen ñaanalaat jàmm rawatina internautes yi duñ leen mën a fàtte parce que ñi ñuy suivre moom rawatina ci revue de l'arène bi amuñu seen fay ñoom Abdoulaye Mbaye xam nga Ousmane Diop Mamadou Kaolack Diallo ca Lisbonne taalibe Serigne Mbaye si Abdou bi ma Mamadou Guèye ñoom ñëpp dañ leen di nuyu ak Mbacke jaañ di leen ñaanal jàmm ñoom Khadiros tuuti Yaay Sarr soxna Ana Cheikh Bintou Fall parce que ñoo ñuy limb ñëpp ak ñi nga xam ne mënuñ parce que ñi ñuy topp bari na ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ñaanal jàmm di leen ñaanal wér gi yaram barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne que daal Sénégal yàlla na fi yàlla yokku jàmm te wasaarewaat ko encore une fois ci àddina bi di wax ne képp ku nga xam ne daal tooñ nañ la wala ñu wax lu la déranger ñu ngi lay jéggulu koo xam ne tamit li ñuy wax gis nga ci sa bopp ñu ngi lay ñaanal yàlla nga gën ñoo ñaanal yàlla di ñu gën a may xel ñu koy waxee parce que lu sotti rek dafa neex suñu borom bi daal di nuyu ñëpp di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm Aïda Diouf yaa ngi si bu yaa ngi si biir ak euh, ki nga xam ne mooy Youssou Ndoye ba suba incha allah.